عليك صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك واميق sëriñ salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi Cheikh Baye Fall ne asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siyaare ne ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziyaara di leen wax ne suñ mbokk mi di leen wax ne suñ mbokk mi mbokkam julit mu baax la mbokkam julit mu baax la aw saafu jullit yi maanaam melow jullit yi melow julit yi yàlla dajaleel na ko ci lu bari yàlla dajaleel dajaleel na ko ci lu bëri mu taseeg baay ju baax mu taseeg baay ju baax baay ji taseeg kaamilul asri baa ji tasee kaamilul asri yëkkati ko jox ko ko teg ko ci loxoom yëkkati ko jox ko ko teg ko ci loxoom yàlla may ko doole yàlla may ko doole may ko xol bu laab may ko xol bu laap boo xam ne mën naa gëdd doole jooju def loo xam ne lu bàyyi boo xam ne mën naa gëdd doole jooju def loo xam ne lu bàyyi soxla la cinquante huit bàyyi rëddee jumaa ji cinquante huit bi bàyyi rëddee jumaa ji ci ñu xëy si woon bàyyi ci xoote ba ci la bokk ci ñu xëy si woon bàyyi ci xoote ba ci la bokk lim doo doo waxambaane lim doon doo doo waxambaane Baay Faal fi wax nangam baaxut Baay Faal fi wax nangam baaxut moo ko fi def baaxut moo ko fi def baaxut kenn mosu koo dégg kenn mosut koo dégg ndax moom ndax moom daf daan jëflanteeg nit ñi daf daan jëflanteeg nit ñi xam ne Ibra Faal mooy sama baay xam ne Ibra Faal mooy sama baay lépp loo xam ne lépp loo xam ne. gisut Ibra Fall di ko def. gisut Ibra Fall di ko def. déggut ko. déggut ko. daan na ko moytandiku bu baax. daan na ko moytandiku bu baax. ànd ak lim dodo dodo gone. ànd ak lim dodo dodo gone. ci ay xat. ci ay xat. waaye mu bokkoon ci ñi nga xam ne. waaye mu bokkoon. ci ñi nga xam ne. su ñuy wax ñi mënoon ci liggéeyab baay. suñuy wax ñi mënoon. ci liggéeyab baay. boo ne benn footu moom ngay ñaareele. boo ne benn soo xóotuwut moom ngay ñaareele. loolu ñu ngi koy seede. loolu ñu ngi koy seede. te duñu ragal kenn dégg ko. te duñu ragal kenn dégg ko. mag ñi fekke woon cinquante huit yëpp xam nañ ko. mag ñi fekke woon cinquante huit ñëpp xam nañ ko. mu nekk ci gannaaw Cheikh Tidiane Niass. mu nekk ci gannaaw kalifa Cheikh Tidiane Niass. di ko dimbale. di ko dimbale. ba bokkoon na ci chauffeuram yi. ba bokkoon na ci chauffeuram yi. sëñ Cheikh moo ko bindal leetar. sëñ Cheikh moo ko bindal leetar. mu xam ndigal ci moom dem Dakar. mu xam ndigal ci moom. dem Dakar. bañ jël ko ci sotaraak. bañ jël ko ci sotaraak. bon dooleem la dundee. bon dooleem la dundee. ba nim retraité. ba nim retraité. kum dimbale hut. kum dimbale hut. lorut la. lorut la. julit bu baax la. julit bu baax la. nit la koo xam ne. nit la koo xam ne. ku mën a sàmm ngorom la. ku mën a sàmm ngorom la. kuy sàmm ngori baayam yi la. kuy sàmm ngori baayam yi la. ndax nit bu fekkee ne. ndax nit bu fekkee ne. yaa ngiy def dara. yaa ngi def dara te ragaloo ñu ne sa baay daanut def lii te ragaloo ñu ne sa baay daawut def lii xamaat na mën ngaa def lu la neex xamaat na mën ngaa def lu la neex waaye moom daf daan sàmm loola waaye moom daf daan sàmm loolu buggut mukk bëggoon mukk def loo xam ne def loo xam ne danañ wax ne xanaa kii du doomi Ibra Faal danañ wax ne xanaa kii du doomi Ibra Faal nit ku baax a ngi ni nit ku baax a ngi nii ku yàlla dimbale ku yàlla dimbale ñu ngi koy ñaanal yàlla ñu ngi koy ñaanal yàlla li nga xam ne moom lañ ko yaakaaral li nga xam ne moom lañ ko yaakaaral yal nañ fekk ca mbaax ak yàlla yal na fekk ca mbaax ak yàlla yal na fekk ca mbaax ak yàlla ga lu hëpp loolu yaara lu hëpp loolu yaara bi yàlla ànd ak moom yal na yàlla ànd ak moom yaara bi ci jëmmi yërmandeem ji ci jëmmi yërmandeem ji dimbale ko suturaal ko dimbale ko suturaal ko ba teg ko ci loxol Cheikh Ibrahima ba teg ko ci loxol Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu mu ànd ak moom dugg ca biir aljana mu ànd ak moom dugg ca biir aljana yal nañ des ak jëmmi yàlla yërmande jooju yal nañ des ak jëmmi yàlla yërmande jooju mu may ñu fan yu gudd yuñ dund gannaawam mu man may ñu fan yu gudd xat yu bëri yuñ dund gannaawam te dund ko ci lu neex yàlla te dund ko ci lu neex yàlla yàlla mën na ko yàlla mën na ko xam na ko xam na ko fa koy maye fa koy maye yal nañu ko yàlla may yal nañu ko may yaa rabbi wasalaamaaleykum mbokk yi imam ne alhamdulilah ñu ngi sant yàlla mi nga xam ne moom mi nga xam ne moom rek lañuy sant moom rek la ñuy sant ci safaan ci safaan di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di wax ñaan yàlla mu yool mu yool ñi ci musiba mii te xuutalal ñu lu gën li ñàkk te xuutalal ñu lu gën li ñu ñàkk mbokk mu baax a ngi nii tëdd ni ko rakkam Baay Faal waxee mbokk sànq ñi ko xam fii ñëpp day ci liggéey Baay lañ ko xamee ñi ko xam fii ñëpp day ci liggéeyal Baay lañ ko xamee sànq bi ko Baay Faal Baye Fall ñëwee di ma ko tàggee. imam ne sànq bi Baye Fall ñëwee di ko ko tàggee. ma ne ko xam naa ko. mu ne ko xam naa ko. ma ne ko ku doon góor la ci liggéey jumaa ji ak liggéey bu aju ci Baye moom ak ku ñuy wax Baye Faye. mu ne ko doxoon góor la ci liggéey jumaa ji. Hmm? ak liggéey lu aju ci Baye. Baye Faye moom. ak Babou Faye. ak Saxiir Fall. ñoom mm-hmm. ñu doon góor lañ ba léegi maa ngi fàttaliku mbaxanaam mi mm-hmm. mbaxanaam mi mu doon sol ñoom ñu doon góor lañ imam ne ba léegi mu ngi fàttaliku mbaxanaam mi mu daan sol foo leen fekk guddi ak bëccëg foo leen fekk guddi ak bëccëg ci liggéey boo xam ne bàyyi ko moom rek ci lañ ci liggéey boo xam ne bàyyi moom rek ci lañ nekk waaye dafa waxoon ne moom fi mu buggu liggéey bi dana fa egg xanaa kay nit ki mooy góorgóorlu ba bokk ci ña ko fay àggale dafa waxoon ne moom fi mu bëgg bi hegg dana fa hegg xanaa kay nit kay góorgóorlu ba bokk ca ñako ko fay àggale kii nag bokk na ci ñooñu kii nag bokk na ci ñooñu bala ñoo wax ci baayam sax bala wax ci baayam sax jëfi boppam jëfi boppam jox na ko lépp lu mu soxla ci àllaaxira jox na ko lépp lum soxla woon ca àllaaxira ndax kaamilul asri bu mel ni bàyyi. ndax kaamilul asri bu mel ni bàyyi. benn waxtu sax boo ko ànd moom. benn waxtu sax boo ko ànd moom. mu gërëm la ca waxtu woowa. mu gërëm la yow ca waxtu woowa. loolu doy na la tax ak ak tax ak àllaaxira. loolu na la tax àdduna ak tax ak kii. te kii. waxuma benn waxtu waxuma benn bis waxuma benn imam ne waxut benn waxtu waxut benn bés. waxut benn weer. ay xat la àndoog bàyyi ci loolu. ay xat la àndoog bàyyi ci loolu. ba làq ngërëmam. ba làq ngërëmam. ba pare suñu bàyyi ju baax joo xam ne ci juróom ñi bàyyi jiital ci la bokk. muy bàyyi Ibra Fall. ba pare suñu bàyyi ju baax. joo xam ne ci juróom yi bàyyi jiital ci la bokk muy bàyyi Ibra Fall. mooy woy juróom. mooy woy juróom. nga xam ne guddeem ak bëccëgam yëpp xamee wu ko woon lépp bàyyi ko ne guddeem. ak bëccëgam lépp xammewu ko woon lépp bàyyi ko moomoon ba bàyyi di aji ajam gu njëkk ba bàyyi di aji ajam gu njëkk juróom yim bàttale woon ne su fekkee dellusiwul mën nañoo wéyal liggéeyam moom ci la juróom juróom yim bàttale woon ne bu fekkee ne dellusiwut mën nañoo wéyal liggéeyam moom ca juróom yooya la bokkoon moo jur Baye Fall mii tëdd moo jur Baye Fall mii tëdd kon duñ def lu may ñaanal ko yàlla rek kon ko yàlla rek yàlla xéegal ko ci way daweem yàlla xéegal ko ci ay way daweem yu xiw yaa rabbi ko ci ñey dëkk ak Mawlana Cheikh Ibrahima Niass boole ak ñey dëkk ak Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu dëkk ak Cheikh ci barzaxam bëgg dëkk ak Cheikh Ahmed ci barzaxam ak yonent bokku dëkk ak yonent bi ca gën jàkkawee lii na. loolu ay maratib la yoo xam ne yàlla mën na ko booleel kenn. loolu yëpp ay maratib yoo xam ne la yàlla mën na ko booleel kenn. te ñu ngi yaakaar ne yàlla dana ko ko booleel moom mii. te ñu ngi yaakaar ne yàlla dana ko ko booleel moom mii. bu duutoon dara sax bu ajoo ci baayam rek daal di aju ci baay. bu duutoon dara sax bu ajoo ci baayam rek dal di aju ci baay. bu ajoo baay nag jeex na. bu ajoo ci baay nag jeex na. yoonam leer na. yoonam leer na. yaakaar ne moom am na ko. loolu nag imam nañu ngi yaakaar ne moom mii tëdd am na ko. yàlla waxtu nekk am na ngëneel yoo xam ne mu ko nëbbu kenn xamu ko. ndax yàlla. waaye yàlla. waxtu wu nekk mu ngi am ay ngëneel yu mu nëbbu. waxtu wu nekk mu ngi am ay ngëneel yu mu nëbbu yoo xam ne kenn xamu ko. yal na ko ci jox cër ba gën a lëw ci yal na ko ci jox cër ba gën a lëw yaara bi. yàlla bu mu fekk benn fitna ci kanamam. yàlla bu mu fekk benn fitna ci kanamam. yàlla bu mu ba benn fitna ci gannaawam. njaboot gi wuutu ko ci mbokk yi. yal na ko yàlla wuutu ci njaboot gi wuutu ko ci mbokk yi yaa rabbi. fépp fu mu leen far wala fu faroon. fépp fu mu leen naroon a far wala fu mu leen faroon. yal na fa yàlla wuutu. yal na fa yàlla wuutu. fuñ ko naroon a far moom itam wala fuñ ko faroon. fuñ ko naroon a far moom itam. wala fuñ ko faroon. yal na fa yàlla uutu ba tey. yal na fa yàlla uutu ba tey. yàlla ñaari boor yëpp. yàlla mën na ñaari boor yëpp. te mbiram wóor na. te mbiram wóor na xam ngeen. te lu méngoo du daanu mukk. te lu du daanu mukk. yal na méngoo mbiram ci kanamam. yal na méngoo mbiram ci kanamam yaa rabi. méngoo ko ci gannaawam. méngoo ko ci gannaawam. méngoo ko ci gannaawam. koy jaale waa Kër Ba Ibra Fall yëpp. na ñu ngi koy jaale waa Kër Ba Ibra Fall yëpp. di ko jaale itam waa faydu bi lépp sax. di ko jaale itam waa faydu bi lépp sax. di ko jaale jumaa ji ak ñi nekkee jumaa ji nga xam ne liggéeyam a ci. di ko jaale jumaa ji. ak ñi nekkee jumaa ji nga xam ne liggéeyam a ngi ci. ay leer la yu yàlla di dajaleel. yooyu yëpp ay leer la yu yàlla di dajaleel. kii daal guddeem bëccëg la bëccëgam ay leer la ci kaw leer. kii daal guddeem bëccëg la. bëccëgam ay leer la ci kaw leer. ñu ngi koy jaale xalifa bi itam Cheikh Ahmad Ibrahima Niass. ngi koy jaale xalifa bi itam Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahima Niass. di ko ñaanal yàlla moom itam yàlla yàggal ko fi. di ko yàlla yàggal ko fi. yàlla ko fi ak yàlla yàggal ko fi ak wér ak man mu yàgg taxaw ci kanami njaboot gi ak kanami taalibe yi yàlla mën na loolu yal na ko yàlla def mbokk mu baax la daal mbaax nag du weesu mbaax mukk waaye nag yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ñu ne mbaax du ràpp mukk 58 jooju ba léegi. 58 jooju ba léegi. ay baax baax la yoo xam ne dara du ci rab. ay baax baax la yoo xam ne dara du ci rab. te loolu yonent bee ko wax sallallahu alayhi wa sallam. kon nag nañ defar sàppe rek. kon nag nañ leen defar sàppe rek. taxawee ko. ku mën ju léegi nga di ko wax ci gannaaw kabar nekk. ku mën ju léegi nga di ko wax ci gannaaw kabar gu nekk. ku ko mënut del wax del wax allahuma ixfir lahu warhamhu te fas yéene nañ jullee fardu kifaaya la te la jërëjëf Cissé defar leen taxawaay yi te ngeen jublu xibla defar leen sàppe yi te ngeen jublu xibla defar leen sàppe yi da ngeen defar saf yi nii def leen ni tàllal tàllalu leen def leen ni yéen kan. jóge leen foofu ci kanam ngeen defar saf yi taxawal leen saf yi fii ba fële saf la. Allahu akbar. Allahu akbar.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 Euh, mbokk yi tey yi nga xam ne yéen ñu doon suivre fii ci jumaa yi Medina Baye euh, loolu moo nekkoon li nga xam ne moo fi xew danañ ànd yéen dem ci kër ga seet euh, yenn témoignage yi nga xam ne mën nañu ko jox am na kenn ci njaboot gi di Mame Bass ko déglu ko. noonu ñun xam nañ ko tase nañu moom ci ngone mu daan ko wax góor gi Fall ba wowutul sax bàyyi waxal ne bu ko kenn waxati góor gi Fall. bàyyi war xam nga doomam yëpp. Mm-hmm. bàyyi lañ tudd. xanaa bu mooyee mamala ji mii nga xam ne bàyyi ko tuddal boppam. waaye ñoom ñëpp Cheikh Ibrahim lañ tudd. mu doon nit ku yëngatu. Mm-hmm. ku xër ci liggéey. ku baax ku dëggu. Mm-hmm. man at mi muy accidenté Dakar ci feebar bii. dal ko. 1984 man fekkee naa bis at moomu waaye mbokk mu baax di doomi nit ku baax ni ko imaam waxee bokk ci ñu baax soo amutoon dara benn cir ci yàlla bu dut Cheikh Ibrahima Fall ma jur ak kooku ni mel ci Baye Niass radiyallahu anhu te bëgg Baye mooy li ngeen xam du bëggee rek làmmiñ rek la waaye bëggee rek jëf la ak làmmiñ yàlla kon yàlla la yàlla wax ci alquran dégg nañ ko doom yi gëm yàlla gëm yàlla gu mel ni seen gëm-gëm yi bàyyi te amuñ gëm ak ya yàlla mu ne moom ci mbaaxam dana éegal doom yooyu ci maqaamee bàyyi te du wàññi bàyyi dara sakkan ak téeg yi ngeen gis mu néegab yàlla bii nga xam ne yonentu ne ku tabaxal yàlla néeg mu ngi ci jublu ku bokk rek sa sa peerab suuf dem rek yàlla dina la tabaxal ngeen di ci aljanna ngeen di ci aljanna kenn xamul ni mu am bokk na ci baraam doon tabax néeg bii man xam naa ci dara ba jumaa ji pare nii tey yal na ko yàlla xarfa aljanna ñaan dafay adab jullit dafay ñaan yàlla ñàkk ñaan yàlla ñàkk teggin la moo tax ñuy ñaan yàlla waaye kii doomi lislaam la di sëti lislaam di doomi taalibe di sëti taalibe te amut ci loolu mu liggéeyal boppam tekki yal na ko yàlla éegal ci a baayam yaa rabbi yàlla yal na ko yàlla wanaleeg mbaay baayam boole ñoom ñaar wanaleeg Cheikh Ibrahima Niass bu bokk dëkk ak moom yal na ko yàlla mu fekk fitna yàlla ba mu ko bàyyi ñàkk nañ mbokk mu baax wax dëgg yàlla wéttal bu baax la waaye dem na fa jëf ju baax amee njëriñ yàlla bu yaakaar tas jërë ngeen jëf ku nekk seen maam maam Bass yal na yàlla guddoo fanam bu baax a baax yal na yàlla dëgëral ko sàmm ko suñu baay baay Cheikh Mouhamed Zeynab gannaaw bi ñu la fekkee fii nii ban kàddu nga am damu damu si njabootu Mawlana Cheikh Ibrahima Fall te nga mën ñu see wax histoire yu am solo tey nag tey bésu njaal ban kàddu nga am tey si kàddu témoignage pour joxe ko. bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin mi nga wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yàlla na yàlla yool ci suñ musiba tootal ñu la gën li ñàkk na nañ tey mag ju baax mbokk mu baax wétal bu baax muy doom joo xam ne doomi pays bi la izzan wa maana ndax doy na rek ñu ne la doom nga ci suñ baay Cheikh Ibra Fall mi nga xam ne kenn la woon ci kenuy pays Mawlana Cheikh Ibrahim di kenn ci faydu Mawlana Cheikh Ibrahim di kenn ci tariqa Tijaan di kenn ci diinal islaam loolu rek doy na yóbbal ëllëg fële ci àllaaxira mu awoon ay tànk baayam yoo xam ne mosu ko wàcc comme ni ko imaam waxee fii ku ne xam na ne liggéey jumaa ji képp koo xam ne taxaw nga ci rek liggéeyal Mawlana Cheikh Ibrahim Cheikh Ibrahim gërëm la tànn ay nit ñëw usi ko mboolem ay torondoom ci 1958 moo mboolem ay torondoom ñu usi ko mu bokk ci torondo yooyu ñëw di liggéey nekk ci liggéey boobu continué ci ànd ak Mawlana Cheikh Matiyaan mi nga xam ne mooy xalifa Mawlana Cheikh Ibrahim tey ba mu gërëm ko mu dem liggéey daani dooleem ba àlla traité continué ci liggéey Mawlana Cheikh Ibrahim boobu kon liñ ko waroon a jooyee dañ ko koy ñeexee ñu ngi sant yàlla bu baax di wax ne damu dama la waaye yàlla ko yàlla jàng waaye ñu ngi rafet njortam bu baax ne addina bii mu jógee koo àllaaxira gëm jëm moo koy gënal fuuf addina mu jógee ko dëgg la danañu wétal waaye nag comme ñu wétal ko yàlla rek ñu moom baxee ñu yàlla ñun tim baxee nañ ko yàlla ndax ku ne xam ne ne fa mu jëm lu mu fay fekke yonent bi sallallahu la fay fekke ku mu fay fekke ci Ahmad Mawlaana Maam Alhaji Abdoulaye Niass ku mu fay fekke Baye Barhama ku mu fay fekke Cheikh Ibra Fall loolu rek ñooñu kuñ dalal incha allah koo bàyyi gannaaw dootu jàqate suñ dooroor jàq sax dootuñ jàqate waaye xam nañ ne ñooñu ñoo koy dalal te incha allah ni ñu koy teralee ci kanamam ci bu àggee noonu la ñuy teralee gannaaw ñu ngi defal njot si loolu di ñaanal yàlla ak njabootam yëpp yàlla defal leen jàmm tam muñ loo ñu ko te itam ak njabootam yàlla jaarale ci tànk yoo xam ne ci la maam yeeg bàyyi jaaroon ñu ngi jaale ñëpp jullit yëpp la ñuy jaale tariqa bi tiyaan yëpp la ñuy jaale faydu bi yëpp la ñuy jaal na waa Medina Baye ak waa Kossy eh, ñu ngi gërëm ti eh, Kossy TV di ñaanal yàlla yàlla gën leen a dimbale gën leen a jàppale ndax télé la boo xam ne fu mu nekk nii àddina bi yëpp koy seetaan lu koy ci mbir na ngeen taxaw ba ñëpp mën koo gis loolu sant yalla la te lii ci ñaani Baye la bokk lii ci ñaani Cheikh Ibrahima la bokk dem ba nga xam na ay rajo fi ay télévision fi sant la kon Moussa ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñaan yàlla ñu ngi wa rahmatullahi